daanu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 23 septembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglekaay li ñu indi ci kàtt ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 23 septembre 2021 dañu ñëw yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk ca xëy fës moo di Ama Baldé sulu bu ndaw borom Pikine Ama Baldé nag yëglikaay bi ne na maanaam am na ci réewum France lu tollu ci maanaam 100 jours téeméeri fan ñetti weer ak fukki fan yëglikaay bi ne na boo ko toppee moom la fa des moo tax nag fan yooyu mu fa am nag la fas yéenee jeexal suba ci ajjuma ji daal la yéenee ñëw fi nga xam ne moo di Sénégal rawatina Dakar moom Ama Baldé la mu doon def France nag moo di nekk ci wàllum entraînement daal di waajal digganteem ak Modou Lo bi nga xam ne mois de décembre la nu war a bëree ama nag daa fas yéene ñëw ci Sénégal continuer ab liggéeyam yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dox ñu boobu information kenn koo xam ne nii yëglikaay ba tey dafa xëy di ci kamuy bëreel muy si tatarki ndaaw jàmm gën ba papa Sow nag ma muy bëreel nga yëglikaay bi xëy tey dikkal ñu ci xamal ñu ne papa boo xoolee ci wàllum at moo gën a aase maanaam moom ak tey itam ci wàllum expérience daa mel ni moo këpp la Siteu moo tax yëgli kaay ba nag mu ngay dànkaafu Siteu nee na kono moytu la daloon booy sëy dal di ko dal ci ka nga xam ne moo di Papa Sow yëgli kaay ba moo xëy tey wax ñu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii moom wala ñeneen ñoo xam ne nii moom maanaam seeni résultat donte combat yee bariwul waaye résultat ba daal daa mel ni boog tane na de wala xaw naa baax muy école de lutte ba da jon yëgli kaay bi daal tegu noon ca ba de ndax six victoire lañ am ñaari def rafet mel ni ki daal kon ren ñoom itam doxal nañu de donte seen i combat bëriwul te itam am na ñoo xam ne bëri nañu daanu waaye am na ñoo xam ne war nañ seen bopp bu baax baax a baax bokk na ca ku mel ni mbay guy gi ak itam koo xam ne nii sor su lan kay wax yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba da jon ma nga xam ne nag moom mooy président école ba moom de responsable ba nee na daal li ñu gis te bëgg ko ñoom ñoom ñoom waa école it ba da jon jon na na du lenn lu daal am roi des arènes tey itam nag sunu làmb bi ñu teg ca loxo loolu mooy la nga xam ne ni moom la ñu bëgg te itam moom la ñu gis keneen koo xam ne ni moom ci tànn la nekk mooy Ambroise Sarr mu yor équipe nationale ngir ngir nag di waajal drapeau bi nga xam ne nii mooy bu CEDEAO wala tournoi CEDEAO bi nga xam ne ndakaaru gii la war a amee la ko commencé ci weeru novembre woy nu mël yëglikaay bi nag ne na boo bëggee dëgg-dëgg ci catégorie 66 kilos daal daa mel ni boo sàgganee Moussa Faye ak Aline Mbengue Ndeye ah est ce que ñaar ñi foofa mbir ma du fa nekk yëglikaay bi moo xëy ñëw dina ko wax keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom moom doomi Kaolack la yëglikaay bi xëy na tey dalal ko ñu naan ko moom nag CRC ba nekk ca Fatick daal la bokk mu nga xëy tey di wax jafe-jafe nga xam ne moom la arbitre di jànkoonteel moom Assane Thiam daal gis-gis boobu la am wala boog loolu la gis tey ba xëy di ko siiwal ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb moom mi nga xam ne ni moom moo di Assane Thiam mu mel ni kon daal tey soo bëggee dégg-dégg yëglikaay loolu moo fi dikkoon. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey sunu làmb moo fi ñëw tey loolu la ñu xëy tey indil ci ay xibaaru lamb mel ni ki nag dañuy yëglu tey déggu ngeen yëglikaay bi nga xam ne moom moo di les arènes waaw tey moom génnul des fois loolu day am waaw ci liggéey bi mais nag suba incha allahu rabbi xam naa ne am na yaakaar ne di ngeen ñu di ngeen ko déggaat ci fi nga xam ne moom mooy seen plateau JDA bi bu fekkente ne nag sunu làmb la tey. fa mu xëy tey ubbee xëtam mu njëkk ca xët wa ca fes mooy Ama Baldé moo xam ne ah loxo baa ngi ca put gëde moom Ama yëglikaay bi nag moo nu xëy di xibaar daal dina xamal ne Ama am na ca réewum France lu toll ci cent jours maanaam téeméeri fan am na ko fa war a ñib si àjjuma téeméeri fan nag boo ko xaymaa ci wàllum wolof mooy ñetti weer kon bu la neexee nga ne ak fukki fan muy téeméeri fan loolu la fa def 100 jours la ko tubaab di wooyee Ama fas yéene ñibbisi ku ne xam ne ne Ama ay weer a ngi mu ngi réewum France rawatina euh, euh, li ko yóbbu nag liñ ci jàpp mooy wala li ñu gis ci ay vidéo mooy mu ngi ci entraînement yu metti ndax daa jëm ci bis bu mag muy diggante mag Modou Lo te combat ba ku ne xam na ne mu ngay raam di ñëw parce que nag mois de décembre la ñu ne te septembre léegi mu dee kon octobre day dugg novembre décembre daal di ñëw kon bu la neex nga ne des ci combat bi waaw muy combat boo xam ne combat bu yàgg yoon la waaye nu ngi ñaan yàlla yàlla na ko lig ni ku lay tëgg ak jàmm te jëlee ca ndam kese ak pépp promoteur bu tëgg làmb moo tax ama fas yéene ñibbi si waat xam na continuer ab liggéeyam parce que ku ne xam na ne ah mook Modou Lo fi mu nekk nii combat jànq la waaye combat défi la waaye combat it sax revanche la ndax li ko waral mooy Modou dafa daan dafa dugg Pikine amagu fa defet ama dugg parcelle ci làmb dóor amagu fa defet loolu mooy li am yaa ngi dégg daan ama te dégg nga waa kar ama dañ lay xamal ne la loolu ba muy am dañ leen a naxoon waaye bii yoon du demee noonu bërki dem sa kobal de wax na ko fii ci seen plateau bi nga xam ne moom mooy arena hebdo kon lamb jooju yàlla nañ ko fekkee taal ko mais lamb ju nar a neex la nara a doon muy ñaar ñoo xam ne ni ay jàmbaari fàkk tëdd lañu muy Modou le roi des arènes Ama Sëll bu ndaw keneen koo xam ne nii combat am yëglikaay bi ñëw na tey di ñu xamal ne adversaire am moom moo di Siteu Pa Abdou Fall mu dëgg jooju làmb Siteu ak Papa Sow ñoo war a bëri yëglikaay bi nag nee na papa boo xoolee ci at moo gën a âgé expérience ta tamit dafa mel ni moo ko ëppalee loolu yëglikaay bi moo gisee noonu moom sunu làmb moo tax muy dànkaafu Siteu ne ko nag ah na moytu la daloon booy say dal ko waaw parce que nag làmb wolof ne ku la jiitu ju néeg bu lëndëm dina fi ngay toogee yaa ngi dégg loolu am na waaye nag làmb mën nga ci jiitu adversaire tamit ah mu ñëw ngeen bokk ci bés mu jaar sa kaw jàll loolu day am ku ne xam ne ne ba papa di bëree Siteu bëreegul wax dëgg yàlla sa que Sow mu ngi bëgg a yàgg ci làmb ji te itam mën a bëreem expérience am ak xam làmbam kenn du ko werante ndax li tax mooy fi mu jaar la ak li ko encadré ci làmb la juddu moom papa Sow Siteu tamit nekk xale boo xam ne nii bi mu ñëwee ci làmb yàggul waaye dama naan su amul woon jom bëggul woon muy def gëmu ko joxu ko cër kon du yegg si fi mu yegg si ndax bi muy doog a commencé boo gisee Siteu ak mbooloo mi koy topp da nga naan ñii lu tax ñu koy topp parce que du doon bër ndax li la koy li li taxoon nit ñi di xalaat loolu wala ñenn ñi mooy niñ ko gisoon mu sewee mais ndekete yoo wolof ne na ku yàgg ci teen baag fekk la ca Siteu nekk ci di ñàkkante di entraîner di reyante tey bokk ci mbër yi gën a seer ci Sénégal yaakaar naa itam ay supporter pour nga gis mbër mu ko blessé te fii ci réew mi dana jafe lool kon defe naa ne loolu mooy loolof di wax ci làmb rek garab la ci kaw lay fekkante papa moo mag loolu nangu nañ ko moo ëpp expérience ba tey mën nañ ko nangu waaye nag giiwu làmb beneen réalité moo fa ne di nga mag mbër ëpp e-, ëpp ko expérience nekk favori bés ba ñëw nga passé à côté mu daan la waaye mbër itam dina la mag nga gën ko doon xale ñu ne yaa gën a doon xale yaa war doole nga ñëw mu daan la loolu lépp day am waaw parce que sport la kon yàlla nañ ci yegg ak jàmm Pape Abdou Fall moo tëgg boobu combat école de Bada Dione mu mel ni ñoom tamit seen i ah ren wax dëgg yàlla donte combat yi bëriwul waaye tane na parce que boo xoolee seen i combat ci huit combat la toll juróom-ñetti combat am nañ ci six victoire ak deux défaites mel ni kon loolu ab liggéey la boo xam ne ni ñoom ñu ngi koy lig ndax école de Bada Dione ay xale ñoo fa nekk yoo xam ne nii xale yu bëgg li ñuy def la ñu laaxar naa ne boo jëlee alibas da mbay guy gi rek moo lay won ne ña fa nekk ñëpp am na ñu lu ñu bëgg ay source bus ñu nga fa ay amel lagros ay BMW bu ñu ko doon lim du ñu jeex macha allah euh, boo xoolee victoire yi ah tane na mu mel ni kon école ba donte bëriwuñu lu bëri ren ndax saison bu teel a tëj ak yéex ubbi waaye itam fexe nañ ba nekk ca euh, seen i defet daal gën a néew que seen ay victoire maanaam victoire yi ëpp lool moo tax ba dajoon ma leen jiite nag la mu xamle daal nee na moom bëgg-bëggam ci école bi mooy roi des arènes génn fa ak itam sunu làmb ñu jël ko waaw loolu nag defe naa ne mooy li nekk ndax olof Njaay mooy faral di wax ne marchand ambulant boo gisati xulle muy dem jàppale na xool ba boo ko xaroon magasin bu mag nga ci ay fekk wala sax ay magasin loolu mooy li am kon jon loolu mu wax yaakaar naa ne xel man na koo nangu moom moo di euh, doomu Kaolack bii nga xam ne nii moom wala boog doomu euh, Fatick di moins Assane Thiam la parce que CRG de lutte bu Fatick la bokk moom Assane caam nag moom moo xëy di wax ci arbitre yi ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel waaw mel ni kon loolu ah xaw ma ban genre jafe-jafe la waaye daawales na ko toppatoo ba xam ko ndax nag les arbitres moom war nañ leen a mettre ci ay conditions yu nga xam ne bu ñu ñëwee dinañu teg seen ay mbir ci yoon maanaam mën a liggéey nekk te maanaam seen bu seen xel dal ñu mën a def seen liggéey comme niñ ko soxlaa ci ñoom ndax arbitre moom ab àttekat la mook gis ba ci tribunal parce que ñoo yem rek parce que moom day àtte ndax ñaar la ñuy boole moom ay régle moom mooy yore mooy xam règlement ya mooy àtte yow daanu nga yow daanu woo mat sinil la du mat sinil génn nga saako bi waroo génn def nga lii waroo def lii ak yooyu yëpp kon arbitre àttekat la moo tax ñu ne arbitre c'est le maître du terrain kon ñooñu defe naa war nañ leen fexee di mettre ci ay conditions yu nga xam ne nii seen wàllum liggéey dinañ ko mën a def ni nga xam ne moom lañ ko war a defee tey loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax tamit que ni comme ni ma koy wax chaque jour rek fi mu nekk nii daal ah ñu ngi ci safar gi rek di ñaanal yàlla sénégalais yi fu ñu mën a ne si àddina bi te bëgg ñëw ci bésu sëñ bàmba bii wala ñu mënta ñëw itam te fas yéene defe ñu nekk yàlla na leen yàlla yombalal luñ ko defee ñi bëgg a ñëw ñi bëgg dem Touba yal na leen yàlla yombalal lu ñu demee Touba te itam lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñi nga xam ne tamit mënuñoo ñëw waaye ñu nga ci meneenam réew wala ñu ne feneen ci Sénégal te mënuñoo dem yal na leen yàlla may luñ ko mën a defee fa ñu nekk parce que moom la mu santaane woon mooy kaay leen ngeen sant le ma sama borom ndax nag ku ñu jël di la sànki di la defi loo xam ne nii say noonu la koy defi yow ca dem nga ba ngay dem ngay nga wooteeg cant bàyyi woo ba ñëw ba jàpp nam nga ndam doog a wooteeg cant kon defe naa kooku la mu wax mooy kaay leen sant le ma yàlla ci bis bi saa bu dikkatee ngeen sant ma ci yàlla ndax jàpp ne boromam defal na ko loo xam ne nii moom néew na ci sant ko kàttanam moo tax toon mu jël képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah rek kaay sant le ma ci yàlla loolu la wax rawatina nag taalibe yi kon defe naa ñu ngi ñaanal xalifa bi sëñ Muntaxa Bachir yàlla na fi yàgg yàgg lool te wér di ko ñaanal bépp xalifa bu ne Sénégal di wax ne màggal gi ñëw na ba pare encore fois rek ma koy wax suma bopp di ko wax képp koo xam ne taalibe nga ñu fexe rek li nga xam ne nii mooy ndigale sëriñ bi ñu tënku ci loolu moo ñuy dimbale àddina moo ñuy dimbale ëllëg yowmal xiyaam ak lu mën a xew waaw ndigal parce que ndigal jëfe Cheikh Ibra Fall dégg naa daan na wax ne ndigal caabi la bu ëppee du ubbi te boo ko yotaane mën nga yàq kànnaar ba kon bu ñu la digalee ndigal da nga yem ca ndigal la ak lu mën a xew na xam ne sëriñ Tuubaa moom yàlla la doon liggéeyal jaaree ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam ak alquran ak yo ko wër ba tey li mu am mu am ko ba fi mu toll mu toll fa ba tax tey ay mbiram di gën a jolli ndax da di yàlla rek moom mooy dëgg leneen lu mu mën a doon pour man ay nax la waaye boo tënkoo ci yàlla ànd ak moom te yàlla kese tax ah ah néew ma doo sonn de waaye man ngaa sonn de waaye mucc de moom xalaat naa di nga ko def moom ndax nag yàlla rek mooy àndandoo bi mu jara àndal moom nag looloo ko muccal ba defal ko sax datu daara ni ba looloo tey ñun ñëpp ñu di xéwlu ci xéwlu xéewal yooya liñ koy dimbalee nag mooy ñu wéy ci ndigalam rek bàyyi ay tereem te ndigal ya mooy jëfe lu baax rek mooy jaamu yàlla di jëf-jëf ju baax rafetal suñu diggante suñu ay mbokk ak suñuy dëkkandoo di waxante lu baax di ko defante te moytu di tooñante ci tayeef ak itam di def lu nu neex wala di tooñ suñu mbokkum dëkkandoo waxuma sax mbokkum jullit mais sa mbokkum doomaa aadama sax tooñ ko daa ëpp rawatina nag koo bokkal diine mooy lislaam te ñi bokku di wax ashadu an la ilaha illallah ñëpp ñoo bokk diine ndax ñaara amu ci benn ci am kon yàlla na yàlla tàppe xol yi comme ni ko dabax doon waxe def jàmm Sénégal def ko ci àddina bi yépp màggalu jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul ba suba incha allah rabbi xulle attention Jackson daanu